kon de dafa mel ni <laughs> ñëpp soj yal na yàlla saafara ñëpp xanaa balaa ñu tàmbali waxtaan wi ñu eh, ndokkeel suñu bopp ndokkeel eh, sénégalais yi yu góor ak yu jigéen mag ak ci victoire pour rafet euh, bi leen bi ñu yàlla jox ak euh, ndam championnat d'Afrique pour une première fois wa ma bi ni'mati rabbika fa haddith depuis l'indépendance depuis les années 80,

ak seen encadrement ki ci gën a ràññeeku di ah, Alioune Cissé xam ne lu ne dégg na ko sénégalais wala wolof moo naqadee jiite moo naqadee jiite dëgg-dëgg lim fi def malgré critique yi ñu ko def yëpp benn étranger defu ko waaw ndax ci carrière am dem na final yóbbu ñu coupe du monde ci carrière de joueur am carrière d'entraîneur am muy ñëw fekk na bi doy war lool waaye muy raam ba yóbbu ñu ci ñaari final d'affilée yàlla may ko ci finalu ren bi mu jël ndam ah defee nag muy wane ne complexe su ah, entraîneur wala sélectionneur bu tubaab moom war na dëkk war na dëkk xam naa li xew fan yi Mali ak Burkina Faso xew Guinée wane ne ne surtout xew Mali surtout xew Mali wane na ne suñu diggante ak euh, France relation ki am doole ak ki ñàkk doole jeex na loolu nag CEDEAO ñoo waroon njëkk a taxaw set solution waaye waru ñëw na ànd euh, France waaye dafa mel ni sax ñoo France yem ndax CEDEAO mel na ni mbootaay wala syndicat wu ay président yuy rey légitimité dundal seen yos rey légitimité yu militaire yi daganal seen légitimité yu tegu ci coup d'état constitutionnel yooyu nag bu njëkk ci biir saal yi lañ ko daan waxtaane léegi nag xale yi jël nañu seen décision jël seen réew en main vote passer passé Sénégal wane na ne xalé légui léegi ñoo jëlal seen bop yëf yi xam nga ne bu njëkk dañ daan wax xale dañuy génn dañuy yuuxoo rek waaye duñu vote waye ku vote yi fekk Ndakaaru fan yile te ñun fa nu fekk couvre-feu yi fekk Sénégal fan yile te ñun fa la ñu fekk daa xam ne xale yi bàyyeetuñu mag ñi dara bàyyeetuñu mag ñi dara xale yi Afrique daal ñu jara encouragé lañ ama am jom lañ waaw da di bu information nëbboo ki nga foog ne dafa nësëx te fekk dañ ko nëbb li mu waroon xama tax mu mel noonu dañ koy tooñ waaye jollu nañ ci jamono boo xam ne dara nëbbootut dara lépp a ngi ci biti dara nëbbootut information ñëpp ci am accès xale yi ñooy jëlal yëf yi seen loxo seen bopp xoolal xale yu ndaw yi ñëw ci équipe national ay xale yoo ñaar fukki at ak benn euh, ñu ngi may nettali ne xale bi Bamba Dieng euh, defe naa mook sama euh, rakk jële Lamine Lamine ñoo nekkoon ndoor ca formation ba centre formation ca Dakar buñ ko daan tooñ ko yow xanaa danga bëgg a mel ni ñoom El Hadj Diouf mu ne raw leen te ne ko dëgg yàlla li mu wane mook ay moromam jom piir la mel ni Sadio Mané ne leader dëgg-dëgg la waaw malgré yi xew yëpp terewul mu garde ah, meram te nag tey da nga koy gis ne dafa meroon ndax dañ ko tooñ nag tooñ yu mbokk égyptiens su joué wuñ suñu mbokk arbitre bi mel ni ci kaw boobu la bokk waaye jom ak ndimbalu yàlla suñ papa du daan wax ne lu ja la moo tax lim ñëw ci alxuraan bariwul benn yoon la ci ñëw ku yàlla defal tawfiq nag nga am li nga bëgg suñu mbokk égyptiens yi ñoom seen xeex yëpp moo doon fexe ba dem ci Europe bi foog ne buñ fa àggee yëf yi sotti te yëf yi sottiwut nag kon na ñuy sant yàlla jom jooju nag la ñuy xaar ci côté yëpp te ñuy gis ne mu ngi annoncé wu ci biir Afrique yëpp xam ngeen ne fan yële wala weer yi weesu yépp coow li nekk biir Senegal mooy coow borom ñaari turi góor jigéen ñi borom ñaari turi góor jigéen ñi na yàlla alak leen alak képp kuy jàppale seen agenda Senegal njëkka daan wax waaye nag ñëpp daje def coalition bu tol ni ànd sàmm jikko nga xam ne képp kuy góor te diine ñor la jikko ñor la bokk nga ci ànd ko kilifa diine yi ak kilifa caada yi génnuñu rek di dénoncer waaye dañu fexe ba am accès ci agenda bi nga xam ne mbootaayu xeet yi ñu ngi koy déroulé ci seen euh, euh, bureau yi waaye génne ko ci biti ba pare it ko wala bëgg ko imposé bépp dëkk bu yaakaar seen cere wala nar ko imposé bépp dëkk bu njiit ya amul amul bopp xam ngeen ne mbiru ngóor jigéen dañ ko boole woon ñoom mbootaay xeeti ci feebari xel yi Amérique dans les comme musiba wu ne Amérique lay njëkkee ñoo ca njëkk a génn ñoog seen lobby ñoog seen lobby ñoog seen def lu nekk pour génne ci ñi ci des ba ñu réussir mbootaayu xeeti génne ngor jigéen ci xeeti feebari xel yi en 1990 yemuñu ci ñuy dérouler agenda pour ñëpp nangu ko euh, ay bés yi paase rek Amérique génne nañ alal ju day ne ñey pour doole lee ko seen agenda wu góor jigéen euh, ilimaan yi jiite gum Amérique yëpp ilimaan ji ci yées mooy Barack Obama nga xam ne mbiru góor jigéen état bu nekk dafa amoon droit nangu ko wala mu bañ ko moom na ba mu ñëwee mu def ko kaamilam yóbbu ko ca mbootaayu xeetu dëkk bi muy congrès bi fexe ba ñu def ko projet de loi fédéral ba jàllale ko yamu ca nag muy wër ci àdduna bi di ba pour ñëpp nangu ko ba mu ñëwee Sénégal suñu président bi mel ni ku bañ wante bañut da daf ne ko da pare guñu mu mel ni kon bés dana pare te incha duñu musa pare bi kër yu baax yi nga xam ne ñoo ànd def kurelu ànd sàmmu koy yi gise agenda bi denonse ko yamuñu ca ñu yóbbu ko ci kilifa yi wara yëg yépp ñu yëgal leen yamuñu ca ñu booloo pour seet nan lañ koy xeexee te du xeexu génn rek manifester donte def nañ ko waaye ñu wut projet de proposition de loi pour suñu pencum ndaw réew mi criminaliser ko ndekete yow suñu pencu ndaw réew ña ko jiite ñoom ci ngi bokk ci mbootaay go ñuy wax PGA ñooñu di dooleel góor jigéen ñi à travers législation yi jàll ci parlement yi a commencé par président assemblée bi Moustapha Niass ak ñoom ay miro ñi nga député yi ngeen déggoon ne ñoo bañ proposition de loi bi teg ay argument yoo xam ne yoon nangoo ko xel nangoo ko suñu président bi it au lieu mu def la mu defoon ci bañ ko indilee problème mu viol yi ko def ko projet de loi ñu criminaliser ko ak vol de bétail mu am fitu dajale ay ilimaan pour ñu xeex ak yeneen mbootaayu diine yi ci turam yàlla mi mën a atte def jeudi bële passé bi Sénégal di football demi-finalam ndekete góor jigéen ñi ñoom euh, seen provocation yi ñu tàmbali woon ak li ñuy wax yëpp euh, lii lii li jom ci nit newut ci ñoom li baax ci nit dañ ko dindi ci ñoom ba mënatuñoo baax ñu dem ca eh, jàkka ja fekk ñëpp a ngi seetaan football di fa sëy loolu nag mooy wan ilimaan yi jogoon pour jéem a défendre eh, waxi Macky Sall président Macky ji nga xam ne amut bopp amut genn ilimaan yooyu am nañu lu leen dàq pour ñu bañ a defati loolu te loolu njëkkut ndax guddi mawlidi nabi sallallahu alayhi wa ca Kawlax am na ñu fa dajewoon ci ñoom di takkante kon nag xeex googu nga xam ni senegal gépp a ngi koy xeex nguur gi bu yeboo mu def preuve de euh, maturité, mu ou de preuve de maturité today koy ou la euh, honnêteté t'as taxaw parce que loi qui a donné kat koy koy fekk sin dundin ci wàllu aada ak ci wàllu cosaan ak ci wàllu société yamu nangu lañ koy teg dafa bokk sax ci lislaam lu ñu tuddee alqawaid alfiqiya alkubra alqawaid alfiqiya alkubra am juróomi qaida yoo xam ne ñooy qaida yi gën a mëg ci qawaid fiqiya yi bokk na ci al aadatu muhakkama aada des koy àtteloo te ñun suñu aada nanguwul góor jigéen suñu diine nanguwu ko nga gis nag ñuy tuddee seen bopp nitu diine di taxaw ci rajo yi ak ci tele yi jéema yoo xam ne pour nasaxal liggéey bu rëy bi ànd sàmm jikko yi eh, taxaw te ñoo ca waroon jiitu waaye mag bu alko jëfe ko alko rek lay def gis ngeen góor gi Ahmed Khalifa Niass taxaw ci télé di défendre mbiru góor jigéen ñi ak di tuutal mbiru ànd sàmm jikko yi te moo ne de su meloon na mu war a moo waroon a jiitu ci ñu koy kon nag détermination boobu ñu gis ci Afrique yépp ci wàllu autonomie ak wàllu indépendance gis ko ci suñu ndaw ñi moo xam ci seen wàllu sport la wala ci seen wàllu ni ñoo yore seen tëkk lu mëta encouragé la lu mëta bàyyi xel la lu mëta jàppale la na yàlla yàgga taxaw Sénégal na yàlla yàgga taxaw l'islam na yàlla yàgga taxaw Afrique yal na yàlla génne France ak ñu mel ni France Afrique ndax mbiru terrorisme yi ngeen di dégg Malek ah, Niger ak Tchad ak yëpp ay kàcc la rek xam ngeen ne Mali benn dëkk melut ni moom ci Afrique xoolal ñaata ah, frontière la am xoolal alal ji nekk te fuñ ne la ay terroriste ak fa fekk suuf su alal nekk ñoo fay ñëw nag di gas ñoo fay ñëw di ko exploité ak complicité lenn ci suñuy leader yi yooyu nag jeex na c'est fini waaw boo xoolee barke démb bi ñu dàqee ambassadeur France bi ba muy génn sa xol dafay sedd guy xol dafay sedd guy moo tax ñoom euh, koytaak du mbuyaak ñëpp ñoo xam ne taxaw nañu pour defar yi ñaan yàlla jàppale leen firiwul nag ne dañuy encouragé coup d'état déedéet kenn du encouragé coup d'état waaye ku bañ coup d'état militaire da ngay bañ a def coup d'état euh, constitutionnel da bañ a def koy bañ kon nag encore une fois ñu ngi ndokkeel suñu euh, jàmbaar ñu leen tuddee suñu gaynde te ñëpp saa ay gaynde lañ waaw ndokkeel Sénégal yëpp wax dëgg yàlla yàlla ndam li jik te mu nekk buntu boo xam ne ci la Sénégal di lancé woo ba foo pour développé wu moo mbokkiri dëkki Afrique mi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa ñu ngi ci rajab fekk simili ñu ñëw waxtaane dugg ci temu waxtaan bi rajab ak xew-xew bi gën a rëy bi xew ci weeru rajab bi idnillahi tabaraka wa taala جود بدا وتساترا ويا مصطفى الرحمن بعد منه ويا ظفرا بالحمد اسما ومصدرا ويا أحمد الهادي إلى خير ملة وناصر دين الله بالحق بالله رجب سايو اكسي لي مورا نجاك فاتلي جلد بموي ويرل شي الاشهر الحرم بان لتي لي 4 موا سكري سو برم عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم نينتي وير يسك هيون كم يرون تمام لي الله وهنكو أتينا تيا القرآن غيرنا لير للنتشي لما واتي تنيوم pour que nous revléchir. leeralal nañu ñeenti weer yooyu yàlla di junj ci ba yàlla weeru digg maanaam weeru shawal la bëgg a wax shawal mooy weeru mooy ci weeru koor moom ñu waaw euh, euh, weeru digg mooy dal xaada weeru topp ci weeru koor mooy shawal am na lu ci yonantu wax ci wàllu woor waaye weer yu sacré yi weeru digg mooy weer wi nekk ci diggante woori ak tabaski moom la ñuy wax digg dul qaada xam ne umra yonent yëpp ci weer woowu def ak weeru tabaski muy dul xijja ak weeru tamxarit muy muharram ak weer wi di weeru rajab nag xam ne mooy weer wi ne cunduma ka rajab mudar wala rajab alvard wax nañ ne sax yonentu sallallahu alayhi wa sallam leeram gu sell gu ñong eh, mi ngi tuxu ci baay abdullah jëm ci suñu yaay aminatu qaddasallahu asrarahuma ci bés bi njëkk ci weeru rajab bi moo tax bi sama jur faatu bés bi njëkk ci weeru rajab mane ko kii dafa tuxu ci weeru rajab euh, pour aksi àdduna yow tuxu weeru rajab pour génn àdduna ci bés bu ca njëkk parce que yaa ko doon na fa ngëndiru ko suñu wayjur suñu sëriñ cheikhul islami wa barakatul anami alxaaja aliyun saaxo qaddasallahu sirrahu wa radiya anhu dañu ko yàlla boole fayal waaye wii ci la fi jooye woon eh, weer la wu nga xam ne lu nit di def ci mbaax daf caa war a gën a góorgóorlu ndax yool ba dafa fulo waaye lu nit di wëttandiku ci mbon daf ci war a gën góorgóorlu ndax bàkkaar ba dafay fulo ay gën yokk ak jamono dafay yokk tiyaabo du yokk bakkaar xam naa suñu groupe bi wara ànd ak ñun umra incha allahu yàlla dimbale nañu ba suñu umra gi ci lay nekk umra gi ñu war a jóge fii euh, le 17 février bi iznillahi tabaraka wa taala wali tawfiq la gu bokk na ci li gën a ràññeeku ci weeru rëjëb mooy ràññaanu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu dañuy wax ndax ci rajab la ràññaan wala ci weeru juddoom waaye li gën a siiw ci ñaar fukki guddi ak jurómbenn jàpp ñaar fukkeelu fan ak juróom ñaar ci la ko sama borom rañaane waaw di voyage boo ne kudul moom mosu ko am kudul moomit dootu ko am sallallahu alayhi wa sallam fekk mu sonn lool moom sayyidina rasulullahi ndax biñ ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq ba nim fi joge noppaluwut noppaluwut ku nekk ci yoonam it doo noppalu doo noppalu mukk fan yële ñu nga Muritani dëkk bu ñuy tudde an Nubaaxiya boo xoolee ni ñoo dundee ci wàllu jàng ci wàllu jaamu yàlla bu duggee ci jàkka ji bu ci maxbara bi eh, nit ñi buñu yeewoo trois heures du matin ka dégg dëkk bi di riir da ngay fi ay malaka fi dëkk ba guddi jotati parce que ñoom dañoo am kilifa goo xam ne fa yonantu tegoon tànkam la teg tànkam muy Sidi Baawul Abdullah di xalifa ci xalifa Cheikh Sidi Ahmed Tijani wasuma gis maxdara bu mel ni maxdara an nu baaxee waaw ndeysaan yonantu nag xam ngeen ñetti at yi tekk yi mu njëkkee bi ko son borom waxee na ko na feeñal message bi ak bi bim ko feeñale li ko dal ci mbugal li ko dal ci lor liñ ko saaga liñ ko xas ne ko saaxir nga ko kadab nga ne ko shaacir nga ko kaahin nga wax nañ ko narkat wax nañ ko njabar wax nañ ko buxaaba wax nañ ko woykat wax nañ ko kuy nettali asatirul awwalin léebi mag ñu njëkk ña lu ne nañ ko ko waaye yemuñu ci lor ko eh, moralement lor yemuñu ko yemuñu ci lor ko émotionnellement émotionnellement mais lor nañ ko physiquement sax xaw nañ ko rey fekke yàlla koy aar wallahu yaasimuka minan nas moog ñi mu àndal ba mu digal leen ñu gàddaay dem xabasha ba ñu demee ba yaakaar ne yëfi dal na ñu dikkaat mu gën a metti ñu demati moom ña fa desoon ñu def leen li ñoo tuddee embargo pendant ñetti at ba muy génn ca xisaar ba ak miracle ba ca xew ca kayit ga خديجه سهنام ابو طالب مولاتو تنير يفاتو وهو ينتو صلى الله عليه وسلم ميجيجي يروم فكيلو اتم ات مومو لا نيو تودي اتم جاخاري مي مو ملني مكه كوم دكو غاد لا كوسا غاد بروتيجي musiba day gën a yaatu te kii yilifoon gàdd gi mu bokk mooy oncle am faatu na ka ci yi kilifa yonent rek la bañ mooy Abu Lahab mu seeti waa Taif woo ci diine parce que booba bu ko Taif nangulee rek Makka dootuñ ko mën lor que Taif ak Makka ñaari dëkk wujj lañu wante dañu soxla wante dañu soxla wante de makka xërëm yi gën a bari fa lañ nekk fa la kaaba gi nekk fa la commerce bi nekk waaye mbay amu fa taayif la mbay nekk kon dañu soxla wante waaye taayif mu fekk fa abda yalil kilifa taayif fekk fa mas'ud kilifa taayif fekk fa habib kilifa taif ñooñu balaa ñu ko gaañ physiquement ndax boole gañ ko boole ko waa dëkk ba ñu gaañ ko émotionnellement yow de bu la yàlla yónnee rëy nga ba mënuñoo wax ak yow bu fekkee da fen nag tuuti nga ba duñ mën a wax ak yow seetal loolu ni mu métti ci ko xam ne sadiqul amin lañ ko tuddee ndax mën a wax dëggam koo xam ne wax dëgg la waaw sallallahu alayhi foofu nag pur sama borom dalal ko ne ko euh, Makka ak Taif rejeté nañ la waaye àdduna yëpp dañ la nangul bés ngi ñëw añu toog ca Amérique di waxtaane sa mbir te li koy dëggal mooy àddas bi nga xam ne ma nga jóge ca Niinuwa ñëw nangul la ci buntu dëkk bi te dañ ko yónni woon rek pour mu jox la fruit ndax dafa la seen yërëm la parce que waa ñu dëkk màkk lañ xam ne seen mbokk nga noonu malawul ala aksi ne ko sama borom joxe na ndigal soo bëggee mu boole ñaari doj yi mag yi dëkk bi yëpp alko mu def ko écrasé leen loolu mooy suuf dégluwuñ la waaye malawul àlla ñu ngi lay déglu mu ne ah sama borom baal leen dañu xamul rek yonentu li taxoon mu mu mu li li mu rawee ñëpp mooy effort yi mu def li muy mët mët toujours dafay joxoñ boppam baaraam du wax ne keneen ki la foo fekk ku échoué rek mooy koo xam ne toujours maga set kan moo deful li mu war a def te jàppul ne moom la seetal boobu yonentu non seulement mu bal leen waaye mu layal leen ba pare neex bu ñu nanguwut doom dana juddu ci ñoom nangu ba muy avancé bala mooy yegg mag jinne yaag si wa id sarafna ilayka nafaran min al jinni nangul ko ba ñu négocier ba mu mën a duggaat ndax génn na te kilifa yi nangootuñ mu dugg fokk mu am garant Mutaim ibn Adi ak famille am garantir ko ba mu ñëwee nag yàlla ne ko li lay wan ne malawul yow rek lañuy ñuy dama la bëgga invité gan muy nganu euh, voyage am boobu son ne subhaana alladi asra bi abdi voyage am boobu muy wax fa awxa ila ma awxa mu mel ni ngan googu wala voyage boobu mën nañ ci def téeméeri junney waxtaan te du jeex waaye dañu bëggoon rek tànn juróomi yëf yu gàtt ci lu gàtt yu ñu mën a jànge ci al isra wal mi'raj bu njëkk bi mooy al ala al xaq waltizaamu al mabda waaw sax ci dëgg ak fexe ba kenn du la weddiloo sa principe loolu ci la sax mom yonent ba euh bi pression yi métti lor yi metti ba ñuy euh, proposer ak di négocier pour mu reculer mu wax leen ne leen bu ngeen tegoon jant ci sama loxo ndeyjoor teg weer ci sama loxo pour me reculer benn iota waaye nag lu gën yomb lool mën na tax ñu juboo mooy ngeen wax laa ilaha illa allah ci principe boobu yàlla nga ko ci eh, dalalee xelam ci isra wal mi'raj wan ko kenn ci njabootam mooy kadaa defer bopp doomu Firawna mi daa woote ne yàlla ba amé lu wad fekk mu ngi peñé mu tuddu yalla mu ne ko ban ban sa borom ban ngay tuddu xana sama papa mu ne ko déedéet sama borom mom mom mom la mom sa papa a ñu boole ko firaaw ne ne daf koy ray mok njabotam yépp daf leen di ray ray bu gëna ñaw mune ko lu la neex mun nga mako def mais ngi lay ñaan bo pare nga dajale sama yahi ak sama yahi njabot nga boole ñu sul ne ko loolu am nga ko firaaw na njëkkee ci doom yu magi ba mu yexé ci bébé bi nag tul tenir xolal jigen ni mu mel ci doom bi bébé bi wax ne ko allah mo gën mo gën am doole mo ëpp doole mbugal bi bi du dara mu reculer mu bañ alak bébé bi alak ko waaw kooka nag bu dee xaleel bu ndaw yàlla jaral ko loolu sàkka yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi gën ñëpp waaw bon mën nga wax ne yàlla daf ko ko dalale wala euh, yàlla daf ko ko yóbbante pour mu indil ñu ko waaw ah, pression yi ngeen di jot moo xam ameri ngeen nekk moo xam fu ngeen munta nekk man bi xaw ma sama ñaata eh, compte Facebook lañu tëj parce que da ngay posté di wax ci mbiru góor jigéen yi ñu flagué wala ngay wax ci mbiru eh, eh, le soi-disant Israël parce que du dëkk ay ay sàcc lañu te dinañ ci dëkk ko defee ñu taxé la de antisémitisme antisémitisme yooyu nga xam ne amul maana ka kàcc kàcc waaw lu loolu métti métti bu leen reculer parce que li ngeen di wax mooy dëkk waaw soo jubadee ba mel ni sama kalaas gi sax bum teex bum tax nag nga ànd ci njubadi joo xam ni mën nga caa wax mu jëriñ wax wàcc waaw wàcc waaw parce que affaire dafa am loo xam ne mënu ko comprendre buñ demee ba nit ñu suufe bay débattre mbiru góor jigéen des ko war a daganal nga xam ne nit nekkatul nit nekk na rab nekk na rab ñaareel bi importance su julli nga xam ne def ko yóbbu ba fu kenn nekkul xaytu la ayn wala makaan xam ne bërëb amu fa dégg nga jamono amu fa espace amu fa muy xadara yàlla fa la ko joxe julli benn malaaka wekk yow muy dëpp na comme Moussa li mu gënoon a bëgg mooy janoog boromam te dañ ko waxoon lan taraan yi mu gis ku janoog boromam mu laaj ko ñaata julli la la am ko ne juróom fukk mun a ko demal saa yu mu saa yu demee ñoo mun a ko demaatal boobu Moussa xam na ne yonantu su ko am na moom tëbb gi muy tëbb ci gis gi yonantu gisanteeg boromam te looloo daqaal janna bu demee mu ñàkk loolu moo tax bëggul yonantu dem saa yu ñëwee rek mu ne ko dee loolu mu wàññi la pour muy mu koy gis ni muy ni yonantu ngi gis boromam moom muy gis bu yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo tax tey bi match bi di jeex li ma njëkk a bind ci sama statut mooy sénégalais yi dëkkee New York ak li ko wër na ngeen jul nañ julli ji tàkkusaan nag bala waxtu yi di weesu waxtu wi du weesu ba xam ne yaa ngi toog yaa ngi sikkat yaa ngi wérde yaa ngi ñaan yaa ngi lox lu ne pour yàlla may la mu may la ndam nga nar ko fecc ba ba set te doo julli kooku du dëgg tey ci am na ñoo xam ne dañuy fanaane fecc ba ba am na sax ñoo am fitu di naan sàngara boole ci yàlla nañ ci yàlla boole musal lu ne def nañ ko kat pour gagner waaye ba ñu xasee gagner rek fàtte nañ yàlla yàlla nee na nit ki mëtadi noonu la mel xuliqa al insaanu halwaa ida massahu charru jazua wa ida massahu al xayr manua a illa al musallin waa ñi julli ñor de meluñu noonu ñi julli ñor meluñu noonu kon nag julli moom liggéey boo munta nekk bu julli jotee ne ko fa tegg lépp looy def su mënta ànd ak julli def ga xaram na la liggéey boo mën a am bu fekkee ne bu julli jotee borom liggéey ba du la bàyyi nga julli daganul nga liggéey liggéey parce que xare bi nga xam ne des koy def pour taxawal diine pour dindi tooñ yàlla ne yonantu bu julli jotee wutal pexe faltaqum taifatun minhum maak utal pexe groupe bi julli ak méthode bañ koy façon bañ koy defee buñ paree ñële ñëw waaw ñii di julli ñii di défendre ngeen xam ko ba ci sax eh, julli xawf nga xam ne même su ngeen mënta def groupe sax da ngeen di julli nu ngeen mënee rek waaye julli kenn du ko bàyyi ba waxtu wa weesu yonent ne li dox suñ diggante ak ñuy dul julli ak yéeféer yi mooy julli ku ko bàyyi rek yéeféer mënoon nañ ci wax lu bëri waaye ñu yegg ci ñetteel bi ak ñeenteel bi ak juróomeel bi balaa waxtu wi di jeex ndax li ñu dese matul fukki minutes mooy sadaqa al xaqiqiya sincérité d'amitié ou de compagnonnage bi euh, yàlla euh, feeñal ci jëmmu Seydina Aboubacar pour mu war a nekk parrain wu ku fasa yéeneti euh, sincère ci sa ànd ak yàlla ak yonantu ba yonantu accès cooli jóg mag nee na hey dafa demoon Baytul Maqdis nekkuñ fa di commenté daw nañ ci Aboubacar ndax xam nañ ne ni mu amee doole mag ak ci biir saxaaba yonent su weddee rek ñëpp weddi ci seen gis-gis ñoom ñu ñëw ne ko dégg nga li sa waa ji wax ne ne yéy dafa demoon baytul maqdis ki nga xam ne ñun ay weer la ñuy jël pour ñu dem mu ne ah man mi man man man man di ko gëmmal xabaaru asamaani juróom-ñaar kon dem baytul maqdis ci benn guddi danaa ko mën bañ a gëm est ce que moo ko wax ñu ne waaw su ko waxee rek dëgg la kon mu ne su ko waxee rek dëgg la te lañ ko joxee laqabu siddiq waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mosuma gaaral kenn l'islam lu dul réfléchir na soog a nangu ba mu des Abu Bakar parce que daf ko xam ni mu xamee yonentu kenn xamee ko yonentu parce que ami d'enfance om la fa innahu lam yatalaazam hésité wul benn seconde moo tax Seydina di wax ni suñu jëloon ngëmu waa suuf teg ci balance jël ngëmu Abu teg ci balance ngëmu Abu Bakr doole kenn du Abu Bakr radiyallahu taala ñeenteel bi bi ñuy jàngee ci rañaan gi mooy ñañu yonentu sallallahu alayhi wa nettali ci ñu yàlla di mbugal te lëm leen di mbugale mooy dañ fee bàyyi woon seeni jabar ba jëkkër yu leen lew dem ca lu leen lewut mu gis leen nag ñu nga lekk yàpp xaaraan wu xasaw fekk à côté yàpp ñor wu neex a nga fa yàlla di leen mbugal bu ñuy wan ne kon sabab la ci mbas yi ñoo dégg ak feebar ndax yonentu wax na ne aw ñaawteef du feeñ ci aw nit mukk ñu di ko def di ko feeñal ludul mbas ak mettiti feebar yu seen maam yi xamul woon dikkal na leen bés bu set ñaata épidémie ngay dégg dem sax ba ñuy commercialiser épidémie ndax médecine ci boppam sax c'est devenu commerce waaw ah, commerce pur la léegi waaw ah, commerce pur la waaw pur ah, aw ñaawteef nag du feeñ nit te ñaawteef wi gën a rëy ci ñaawteef yi mooy ñaawteefu ngóor jigéen ndax yàlla ngóor jigéen faaxisha la koy tuddee ci alxuraan faaxisha waaw ñaawteef dëgg mooy ngóor jigéen ak njaalo ak yu mel ni moom yàlla nañ ci yàlla boole musal juróomeel bi te ci la ñuy tëjee doon nañ ngeeju waxtu wi yaatu waaye ndax dafa am solo mooy fa yàlla yóbbu yonantu mu rañaan balaam ko yóbbu mu yéeg ndax rañaan gi mooy diggante مكة أك baytul maqdis أك masjidul aqsa يجي gi muy miraaj gi muy diggante baytul masjidul aqsa ak asamaan أك juroom توب ak ya ca topp foofu nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wasallam lim nekk Makka yépp bu daa julli dafay julli ci jublu ci kaaba gi waaye jublu foofu maanaam kaaba gi day nekk ci kanamam baytul maqdis nekk ci kanam kaaba gi bim ñibbee medina bim tuxoo medina comme boo jubloo baytul maqdis kaaba gi dafay nekk sa ginnaaw boo jubloo kaaba gi baytul maqdis dafay nekk sa ginnaaw yàlla ne ko na jublu baytul maqdis imam Buxaari ne pendant fukki weer ak juróom benn jàpp fukki weer ak juróom ñaar yàlla soog ko wax mu delluwaat kon mooy ulal qibla tey di bërëb boo xam ne fa yàlla tànn yonantu salaay sallam jaaree fa ci rañaanam jiite fa yonantu yëpp nag wa qaddamat ka jamiul anbiyaa biha wa rusul taqdimu maxdumin maxdumin ala xadam di bërëb boo xam ne ku fa julli benn rakk mu tolloog mu ëpp juróomi téeméeri rakk yoo jullee fudut foofu ba mu des jàkka yonantu ak masjidul haram sallallahu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bërëb boobu nag nga xam ne jullit yee ko moom ñu fekk ay jullit yu fa nekk dund fa ay junniy at ñoom li ba lislaam ñëwee ak seeni maam doon fa dund ay bandi yu jógee Brooklyn ñu mel ni ñoom ñaaw ak Russie ñu mel ni ñoom David ak Angleterre ak Amérique ak i nangam xëy na ñoom ay yahud lañ ñëw rey ay centaine de milliers de personnes génne leen adduna waxuñ dara non seulement waxuñ dara waaye fa nga xam ne fa lañ leen oniyem loo woon sax ñu ngi continuer di rey nit ñi di leen fa génne jullit yi waxuñ dara non seulement waxuñ dara ñu ngi normaliser seen relation fan yi rek président Israël ma nga woon Dubai ci Dubai Expo loolu nag war na fexe ba nekk suñu masroor nga xam ne bu ko xeexut yàlla moom danañ ci mbugale te moom dana dimbale ñu dëggu parce que alxuraan boo xoolee alxuraan yëpp qisatu Firawn ak Moussa ñoo ci gën bari niñ ko tuddee sànq ci pañakat ba Moussa di représenter humilité te yàlla ñu humble rek lay wax ñooñu la àndal Firawn di représenter arrogance ku nekk ci ñun nag war a jël position askan yonentu la ñuy àndal moom mi nga xam ne mooy sangu Moussa mi représenté humilité wala firawna la ñuy àndal te jamono bu nekk nag am na firawna am na Moussa yal nañu yàlla boole ci ñooñ Moussa te ñooy ñooñ rasulullahi sallallahu alayhi sallam te musal ñu ci ñooñ firawna hada wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Are you tired of high cable TV rates? Sign up for Dish today and get a $500 bonus offer while supply. فقد واد الدوي ويلك ما لك فقد اشتري زكاج عاتك سلام على قبر الأمين المبارك فكنز أحياء وآخر الهالك سلام على فخر بنضر ومالك وأغنية أيتام ومأوى سلام عليه من خديم متيم يبشرون كل حاك وحائك فإن يكون جزماني بسر عليني بروحي لداك الحبيب المبارك حضرة خير الخلق حضرة سيدي ويا حضرة المختار بالمناسك أحبك حبا تاب قلبي وقعده فما علي امتداحي جنابك فآيك آتنا وقدرك بقاء ومقدارك السامع علي فوق ذلك فأنت حبيب الله جل جلاله وأولاك ما أولاك يا مشاك سرى بكيل ثم أدراك جالبا وغرست بسر ما تخاطر سالكي سرى بك ليلا ثم أدراك جالبا وغرست بسر ما تخاطر سالكي سرى بكاردا ما أدراك جاردا وفزت بسر ما تخاطر سالكي خرجت من الأكوان والسبي ساميا وغدت اعتلال كل حي والك وأغنت عن المكنون والغيب راقيا وفدت لعمري كل دار ودارك يا حي يا قيوم يا ربي ابن نصيبا من السر العزيز المدارك وتجعلني خديم جنابي بنفسي وروحي مخلصا عند مالكي أراني عبدا سأوس حالي فلم يكن يرجو وحد التدارك يظنون بي خيرا ولا خير إنما رأوا حضرة المحبوبين ليست جمالك فلا تفضحن يوم الوقوف مقصرا وكل يا يا ملايا من جم مالك وقطع عمري والسباهة كاسمها بال من شفيع فيه والمدارك وضيعت عمري بالتكاسل والولاء فويلك يا للنفس وعظم بدارك وصفتي مرضى الناس كل دائم فويلك شر النفس من لدائك باهن لإبراهيم عندما كان كذب فأين إبراهيم إن لم تدارك على أنهم بحسن ظن ظني ربي لا يرجو منالا فوق كل سواليك ويشهدوا للملا عظيم امتنانه بتفويض أمر العظيم تدارك بحب رسول الله حقا وذكري عليه صلاة الله صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Islamic Cultural Foundation of America Masjidul Muhajirin Wal Ansar ñooy woo mbokk jullit yëpp fu ñu mënta nekk ñu ànd ak mbootaay gi jàppale service yi nga xam ñoom lañ fay jox jullit yi ak projet yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu kanam ikfa masjid ubina buntam yi ngir di fa joxe julli juróom bes bu nek fa di fa def after school program, di fa jàngale alquran ak arab ci weekend yi ak ci yeneen yi bes di fa sports program, free counseling lectures taxawalit community radio bu jullit yëpp mën a jàngee seen diine amalit ay online services moo xam ci suñu website wala ci social media yi liggéey bu mel ni nag du mën a taxaw lu dul gannaaw ndimbalu yàlla loxo jullit yi rax ci dolli ñu ngi Wajal jënduk building bu nga xam ne dinañ fa mën a joxe service yi yëpp ñu tudd uh, waaye mën faa amit uh, full time islamic school ngir mën faa yar suñuy doom uh, jàngal leen diine jàngal leen i xam-xami réew mi ku ci bëgg a dugal mën nga yónnee sa ndimbal ci adresse 740 Delafield Avenue Staten Island New York 10210 Islamic Cultural Foundation of America 740 forty dollar field Avenue Staten Island New York 10310 wala ngeen visiter suñu website ikfa masjid